TFM ñu laaj ko mu ne ma bu savez bi ma nekkee professeur dama daan wax li ma neex mhm. léegi je suis dans l'état mais hmm. what does it mean man d' accord ayca ñu wax ci leneen Passane Seck ci collectif ñoo lank yi nga xam ne bëgg na wàcc ci mbedd mi ni ki suba ngir amal ak doxuk ñaxtu ci askan wi li ñuy dund te mu metti lool ci yokkum njëguk dund ki collectif bi nag association yu bëri ñoo ci tënku woo nañu itam yeneen mouvement citoyen ngir ñu mën a bokk ñëw tàbbi ci boobu lekk manifestation mu doon mobilisation bu rëy lañ ci bëgg waaye ba jonn yàlla tey amuñu uh, ci uh, li nga xam ne moo di rek ndigaluk préfet ndigal goo xam ci di leen mën a may ñu wàcc ci mbedd bi manifester comme nu ko bëggee dañu ciy teelu Amina Cissé stagiaire ma leen fekk yoon. collectif bi ñu duppee ñoo lànk di dëgmal ab doxub ñaxtu niki suba ngir xeex yokkute ndund mi. Euh, dañoo woote suba ngir def benn manifestation boo xamante ni dafa jëm ci yokk bi nga xamante ni yokk nañ ko prix denrée de base yi. def nañ ay rencontre yu bari yoo xamante ni biñ ko dajalee. Euh, war nañoo mën a am lu ñu war a ñëwaat wax ko ak askan wi woo leen ci bis boobu nga xamante ni incha allahu rabbi suba lay doon 15 heures euh, ñuy déparé place de la nation ba rond RTS. di woo sénégalais ci manifestation boobu. rencontré nañ tous les acteurs de ce ñun nag ay impacté lañ ay consommateurs lañ. coût des denrées yi sonal na ñëpp. ngi woo ñëpp à la place de la nation. woote marche sénégalais mm, wàcc marche. lépp pacifiquement. Mhm. sénégalais yi wàcc ñëw wane ni dund gi cher na même bu fekkee ñu ngi wax ni arrêté génn na pour wa réguler euh, njëg yi. njiitum collectif ñoo lànk di ñaaw lu taxawaay gouvernement boobu lee ci njàqare sénégalais yi. Amina Cissé jërëjëf Haj Mansour xibaar ñu mujjee jot préfet kon dafa tere boobu leeg manifestation collectif ñoo lànk ci dund gu cher gi. xanaa war na kon justifier la moo tax mu aaye ko. parce que marche bi pacifique la wàllu jàmm la ñii marche mooy population bu Sénégal yi tënku ci ay kuréel li ñuy ñaxtu mooy dund bi dafa cher ñëpp gis nañu ko donc bu ko aayee war na notifier lan moo tax mu aaye ko wax dëgg yàlla mais bu fekkente ni bii indiwul ay raison yu yu doy waar yu mën a tax ñu bàyyi doxu ñaxtu bi vraiment ñu ngi tënku ñu ngi ñu ngi dëgmalaat ci yoon woo xam ni ñu ngi bëgg xañaat nit ñii li seen sañ-sañ bi leen démocratie jox te eh, marche bi ñuy xeeb moo gën a sedd ci ñoom. parce que bu ñu leen bàyyee ñu marche xëy na génne li tàng ci seen xol que wi sonn nañu ah parce que yokk gi tayeef la. xëy na dañ ko tënk ci décret bi nga xam ne paasan euh, mi ngi fi ba léegi ci tere rassemblement ci période arrêté wala arrêté plutôt euh, tere rassemblement ak mbas mi di Covid 19 waaye est-ce que tey li ñoo lànk di collectif bi lee di euh, ñaxtu sénégalais yëpp waru ñoo génn fekk si leen ndax dund gu cher gi ñu dund. mais sénégalais bu ñu génnul suba. Mhm. buñ ko interdire tey bu subaa dinañ ko autoriser wala buñ ko autoriser nit ñi autoriser ko seen bopp. yàlla bu ñu